ay waxal. génn leen jënd xaal. kaay leen jënd xaal. ma jaay leen xaal. ay waxal. xaal day ñor yow. xaal day ñor yow. xaal la yow. te noo tudd. Leuz. Leuz xaal. waaw. xam nga lañ seeti tey. Hmm. sama tooma. nu mu tudd. Leuz. Leuz naan Leuz diwaan ji. Leuz diwaan ji. waaw. mais yow. ay yow lan moo tax a wéradi yow. kii daa xam ay waxal xaal day ñor ay tout ce qu'il y a comme charme et beauté dans l'histoire de ce pays. Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, à tout un chacun, à tous les téléspectateurs de la première chaîne de télévision privée du Sénégal. De l'autre côté, nous avons une autre caméra pour vous permettre de voir sur tous les angles. Je suis avec Leuz Khal. fan bi keroog gars dañ ko dañ ko tooñ. dañ ko tooñ moom. mais Lac de Guiers aussi ah. lat moom loolu mooy bëreem ñun xam nañ loolu bu baax mbëru jaama gën a xam. puusal moo jàll la. waaw waaw. mais. lat mooy loolu quoi. ah lat kay gaan dañoo tooñ dëgg gaan. Eh, yi ñëw. ah duy stade bi ba mu naaj nii war a feetu. jour boobu dama am mer ba reeru ma sax. keese na ay coups. def na lépp pour bëre. te nee nañ ñu moom mën booy moo ëpp doole. ba pare deful dara. kooku day xaar. léegi tarkindaa bi kan la war a gérer. tarkindaa bi ah Balla nañ ñëw. mais Balla est-ce que ruuxul. ah Balla Balla gaan may ñu sens dañuy jël Balla jël ñu nu mu demee nii jël ni gaal nag ah tarkindaa yi instant yi dañoo dañoo soxla de roi bi la ñu war a jëli. waaw Balla may ñu sens. waaw dañ instant booy bi normalement daa war a bëreeg moom billaay parce loolu lañ ko defaloon bi mu nekkee booy ah. waaw ah, naaj mais man sama booy laay wax quoi. Laurent borom borom borom borom samedi. le deux le deux. moom ak euh, mais kii lay buusite lay. moom ñoo dina ko dóor dóor yoo xam ne Laurent mosu ko sip. bu fuñ ko jaaroon rek lañ koy jaarat bu ñun ñun xa xam li bokkul ak lamb de. li kickboxing la de ñun ñaata weer ñun ñu ngi jàng xonet war a génn dem combattre yi benn. kii bu ndaw mayuñ ko booy bi moo tax nii nii mu xonet. kickboxing ak ak ak ak ak ak làmb bokkul de. kickboxing fii amul ay kickboxing. booy bi de nar na dóor booy bi ba ba gars yi porte pelante ko buñ teewu loxo yi. yow booy bu Siteu la lay war. bu Siteu loxo yi daa dëgër. kooku yàqu daaw la. <laughs> eh Less. eh bonne journée bonne journée mon ami. merci beaucoup. mën nga yuuxu ay waa xaale yow. Bonsoir et bienvenue à tout le monde, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, à tout un chacun, à tous les téléspectateurs de la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Top, c'est parti, on vous propose tout de suite beaucoup de bonnes vibes, beaucoup de bienvenue. C'est ça la beauté des rues du Sénégal, ce que vous ne verrez jamais en France, en Italie ou en Espagne. Nous, c'est ça la rue chez nous. Tu peux monter, tu de la hauteur pour passer jéegi raay man la buuru parcelle maa ngi ci buntu géeja waay seen say respect woowee ko maître waay sama lun càkkul laa yor di wër di nokke waay ragal ragal ragal du jéegi raay man la buuru parcelle maa ngi ci buntu géej a waay seen sëy respect woowee ko maître waay sama nun jàkku laa yor di wër di nokke waay no bal ko waay noo duma ko baal mat ki la pap si di baal noo duma ko topp di mar ay tat mu noo ma fay di jeptaal flop fop du ma bokkaat gis nga li ma fa teg forcé wu ma la sama talent big respect jeex daf dof jof mef patriote kuy sa président am nañ real niggas vegas niggas yeef yëpp banque ñaari boor ci ji ula mor boo ci bëgg ku nekk sa jamono 2016 man laa samp ndënd jox la méditation payor fay la 12 mois kon boo ma xamul teel defal doucement rabagu dara ma dinga ma taxaw sa kanam ni pare nga ni ga ni dafa dem ba ma dinga ma rab ba ragajo kanam ma ni ga ma jegale jegale nangu ne yàlla ma délégué jaroo ngay frégué munoo ma téeman aw ma frein ma ni sedema sedema dama raw non filmu cinéma damay ray sax di la bang bang bang ama bang bang bang ama teng teng man la real say es kay kay kay kay kay dafay taanu rap ma ni ko maa ngi ñëw képp microphone bi nara say tay tay tay tey tey tey gën a gaaw ni kat kat di la jot nii si daan man romb naa bu yàgg bay fa kat fa kat cat rap ne karmacha yow man la kan yow man la real neem la say say say Comme disait l'adage, tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement. Et pour les dire, les mots arrivent aisément. Et je vous informe que le mois de décembre, ce sera un mois extraordinaire pour le hip-hop sénégalais. Et vous allez par vous-même voir que ça va être des moments de hip-hop. Mais à partir du 2 décembre jusqu'au 30 ou le 31 décembre, vous allez vivre des moments extraordinaires. Koumbi sera là dans quelques instants pour vous raconter tout ce qu'il faut savoir. Mais aujourd'hui, nous sommes à Mbao. te gisuma la Mbao yow waroo bàyyi mu seetlu popping. Let's do pour une vidéo, celle de Nit euh, qui vient de sortir et qui a crié tout haut ce que les gens pensaient tout bas. bienvenue sur la 2STV. Alors, je vais commencer par un grand styliste qui nous représente partout dans le monde. Mouché. Il a fait une très belle collaboration avec les artistes comme BMJ, Julio Bang et Bilou pour présenter une collection nice. Nous avons fait une yu amul fenn donc yox la dem ci Mouché. ey dinga jekk set son lu nice ci muchacho xale yaa ngi jiiroo collection sexe amul yaa xool nga ni may solo kii ni solo gis nga solo boo ko buggee jugal dox ñu dem ci mucc Allo Lekhou avec Papeuche pour parler de son projet expérience qui va sortir le 22 décembre inchallah mujjee nekk réglement de compte waaw kii di page bi di meilleure phrase rap galsen ak Ibou bu Bour Musique tàngal nañ ko ba mu tàng ñëw nañ ci direct bi xëpp ci kaan ibu Ibou nag nee na mosul yoreel 15 benn page képp ku mu ci liggéeyloo fay na la meilleure phrase nag nee na ko liñ ñu yoreel boo ñu ko fayoon ba tey tabax nañ kër Papage mooy mujjee wax si yow na war naa la communication dina xaw a compliqué parce que déjà yaa ngi defoon benn son classe yi page yi comme ku si mel ni rap wolof moo raw et en plus Ibou page yi moomal problème bëri na Ibou sikk page ñoo sikk wala artiste bi moo sikk tontu leen ma si commentaire yi lex yow moom seytaane nga nee na nag dootoo defati direct ñu ngi xaar beneen direct waaw. culture de Nayem for the culture moom nag clip bi déjà rek sa parle ñu ngi gis si ginnaaw benn gaayan buy def graffiti ñu ngi gis ay danseur gis DJ yu DJ yu nag yéen DJ yi yéen laay waxal. moom nee na DJ yëpp yi nekk ci game bi moom mooy seen baay DJ Weuz DJ Mat Killa DJ Nina ak yeneen DJ yi yu nee na mooy seen baay. voilà kii di Culture nag ci biir son bi deuxième partie bi ñu ngi gis ñu ngi ci delloo njëkkal ñi nga xamante ni ñoo ko gën a marqué ci game bi déjà son bi c'est purement hip hop moo tax ma ne leen clip bi déjà rek ça parle parce que yooyu noonu yëpp nekk si ginnaaw ci biir hip hop la bokk Fodé culture. fekk ñu ko jàpp ba tey gëm ni warul deet new generation gëm musique bi dëkk si di ko jaay respect break Elzo Dara tax rap bi nu check ni trip. El Jazz Big Jazz is back moom nag def na retour bu am doole ñëw classe waa Alien Six c'était prévisible parce que déjà ñooñu depuis ba ñu defee seen retour ba tey El Jazz mayu leen jàmm waaye traité ki nga xamante ni moom mooy ak bees rappeur Brioche loolu nag métti na ma trop El Jazz lu toll ne Akbess nga koy traité rappeur Brioche. <laughs> kabar ci sàppe yi may dox dàkk leen rap maa tey sa bar seen kel yi di tiktok doo ko la doon àlliñ ma yen coppi collé kaana kaana lu di jaay alien doxee kattan ah. fanaan ci néeg bi ma la def si rap lu kenn deful no man dama yéeme ma ak ma bees rappeuru brioche nooy bees may as may bees jiite seen show yi doon après le clip de BMJ dans le projet des Fadi Dara de Gaston Bandimai je vous présente Element Adama écriture yu riche ay message yu foor élément xam nga moom dafa aay ni ndal bi <laughs> moom noonu la affaire yi setee quoi ni écriture yi lay toppee ñu dem xooli lool et que bu leen fàtte concert bi le 2 décembre euh, nouvelle place des cultures urbaines incha allah foofu dina neex ñu dem xooli élément Adama tànnee fu gën ci lépp moom la soob ngay léeru lépp teg la ci kaw bañ ko la xeeb naaw bakkaar moo tax nga wàcc iblis du nangu màcc keppaar bu sedd nga doon dund xamoo keru naaj suuf safara ngelaw ndox taaral sa jëmm benn fekk si kaas nekk ngeen di rafet bind rebel bi teg na fiiram wa mat na la suufu jant buñ ne la doon xel yëpp dem ci beg tu begu axlu brique bi ak ngaak blende le deux la incha allah gis ngeen seen open press yi open press ki nga xamante ni moom mooy ngaak blende ñu ngi ki nga xamante ni moom mooy di Diop teg si nag ne waax club bi dañoo sàcc son bi mais son boobu noonu ci ñan lañ ko war a sàccee. mais open press kii nga xamante ni moom mooy waa club Brick déjà nee na ko bu fekkee freestyle yooyu noonu nga doon defanteeg di Diop yooyu noonu nga yaakaar noo mën nga récupérer sa avance. ba tey kaa bi duma ko bàyyi son bi ci ñan lañ ko war a sàccee yan mbooy mbur lañ ko war a sàccee en tout cas ba jeudi Easy. <laughs> la bettee da nga nelaw gëstu te yàgg na déglu bu la fa fekkee nga ne selaw no du fay ñëpp a koy déglu ni muy dikkee axan kay di ngeen ko bët lu yëkki xel ñu yàgg a teraw ak ngelawu tàngoor di nga déglu du yomb fës na sëngal dañuy bomb foog ñu bëndal tekki ndama foog ñu jëngal gasatama foog ñu dëngal gëti kumba la tëmbal jéegu xumba foog ñu jàmbal waaw kumba def ni ruuba dugga tëral leen di bombal laaj ba wing na naan stop flip flap la wala boog simil sa kap ñu fata kap yu bere xob dama ndekete fan la kan ci lan la ñu bari ci yéen seen këri fan la pare ngeen bu saget góowe di ko ñëwal bëri ñu dal la du kenn man la hip du fen lu am la ci vida waa ji kan la kii dëggan la ay wagaañu stand da hip hop we live it to the core na si ñun du fay raw na si ñun libido non stop sori na ba léegi doo understand fi mu jëme kew du teñu lay doo we live it to the core yàgg na si ñun du fay raw na si ñun li bi doo non stop sori na ba léegi doo understand fi mu jëmee yow du tey ñu doo education from the family first second from the school motivation from the street niggas get to feel full li ñu wax ci émission bi ak li may def du bokk Leuz maa ngi lay nuyu di la ziar. ziar nuñu la Pape Sidi. waaw alhamdulilah ba nii nii nii sama équipe équipe bu ñu àndal. pour tourner émission nee nañ dañuy tourner ba si digg bi ñu coupé comme ça ñoom ñu mën a lekk si jën maa ngi yëgal nit ñi ne leen ñoom ay malfaiteur lañ. <laughs> non ay femelle faiteur. am na malfaiteur am na malfaiteur. waaw ñu gisee mu dagg rek. am na femelle faiteur. jàpp <laughs> laajuma kilib laajuma dara luñ fi teg leneen loolu li ma def nii. def lu leen ne barke yàlla dañuy def lu leen ne. ah gars yi tamit soo ba léegi ñoo ngi ñu lekk jën bu yàqu. de. waxuma dara. ma ne du ma wax. Liz. waaw. seede nga de. ah waaw waaw. bi ñuy dem nag yëpp. yaa ngi gën a baax. demoon nañ parce que ay ñooy aaru mbedd nga defal ñu ay jën. te ah. ñeneen ñëpp ay défense lañ. ah waxu ko de. Gaston lañ mujjee fan lañ mujjee Pout Pout lañ mujjee. ah xëy na nuyu waa Pout yëpp. dem nañ buut ba ñëw lekkuñ fa mango. lekku leen papaya tamit. <laughs> Donc bonsoir et bienvenue à tout le monde. Encore une fois, merci beaucoup à Kumbis Crazy. Vous avez vu les efforts que Leuz a consentis, c'est pour wane teranga bi am mbaaw. Mais Leuz, maa ngi lay ziar bàyyi la nga nuyonte gars yi lay seetaan. Waaw Pape Sidi, bienvenue encore une fois. Re-bienvenue sax laay wax. Donc fii sa kër la. donc di wax sénégalais yëpp asalaamaaleykum les sénégalais du Sénégal de la diaspora mais di wax mbaaw comme d'habitude asalaamaaleykum waa mbaaw asalaamaaleykum waa 2S ak képp kuy seetaan ñu ngi lay jaajëfal voilà ñu ngi ak yéen ba ci kanam. Euh, Leuz dinañ wax ci gisuma la mbaaw ak lu waral gisuma la mbaaw expression boobu xay na xam nga ko loolu moo waral d'ailleurs ce qui porte le titre de ton spectacle gisuma la mbaaw show le 9 décembre danañ ci wax mais mbaaw est-ce que gënul réussir rek. Uh. Zac Mbao Sicap Mbao Petit Mbao waaw déjà Mbao euh, origine bi ci mbaaw bi la déparé lépp lu fii mooy Grand Mbao fii ñu nekk ni mooy Petit Mbao Petit Mbao moo jur Grand Mbao waaw ci histoire Petit Mbao ak Grand moo jur Grand kii de Petit waaw non bokkul petit petit petit détail mais grand dans l'importance comme ni gars yi wax parce que gars yi dañu doon def ay migration Euh, petit li tax mu jur petit li tax mu jur grand petit dëkku tudd woon petit sànce ba la tuddoon mais gars yi bi ñu ñëwee ak migration yi ñu def jógee jandeer di migré di migré di migré ba yegsee voilà am na ay ay ay ay yu bëri donc gars yi dañuy wax curum euh, mooy actuel Kër Massar mbaaw mbaaw maanaam première sàncaanu mbaaw curum la woon. Kër Massar waaw mooy. ak Pa Massar dafa def coup d'état. non Massar moom. comme comme comme Mbaye Fall rek. donc ay nit la yu am bërëb ñu ñu koy localiser espace ba faf mu mu gàdduwaale tur mais ci bërëb bi ñu ne sancaan bi mooy mbaaw léegi mbaaw avant muy nekk mbaaw nekk na curum toxu nekk ab gal nekk ndégét et cetera et cetera ba yegg see euh, sanca ba mais après pes moo leen fi moo leen fi jëlee ñu migré dem Grand Mbao après dañu ñëwaat donc ba tey famille yi ba tey benn famille bi la donc même famille ñoo nekk Grand Mbao ñoo nekk Petit Mbao parce que voilà benn benn benn groupe de personnes ñoo doon déplacé wu. y a mbaaw. waaw mooy li ma wax léegi mbaaw bi. bu ñu ko daggee ci ci administrativement parlant commune d'arrondissement de Mbao day déparé Petit Mbao Grand Mbao Cité Ndeye Marie Cyprès dem Zac Mbao jël Kër Mbay Fall. Kër Mbao non yooyu bokk yooyu bokkul ci Mbao bi loolu jàmm gën la bokk si ka Mbao jàmm gën ba tey mbaaw la parce que gars dañuy wax ne foofu noonu moo nekkoon ay fas Mbao si ka Bouba Dëmbaaw Bouba Dëmbaaw. non kooku kooku nit la. Ah. kooku kooku nit la <laughs> kooku du dekk kooku nit la maanaam yooyu boo koy xool foofu moo nekkoon fu ñuy wax euh, ndigit ay jamono foofu ñoo ñu tuddee ay Sika mbaaw ay foofu moo nekkoon ndigit moo nekkoon liy indi gisuma la mbaaw ci historiquement parlant. on gisuma la mbaaw en tant que tel. exactement c'était pour dire que ne foofu bërëb la bërëb la woon bu ñu maanaam gendarmerie bi fi mu ne. LGI mbaaw Sika mbaaw. buun et cetera route de buun ba yegg see euh, wàcc ci suuf wàcc tefes bi mooy fi ñuy wax euh, mbatal wàcc ñëw nii loolu loolu yëpp mbaaw la woon. Mm-hmm. mais ba moo tax seen i tur day ànd ak mbaaw danga nga naan Sicap mbaaw Fass mbaaw et cetera et cetera parce que day ànd ak mbaaw bi loolu mooy histoire dañ ne mag ñu jëkk ña foofu lañ daan daje di nas di waxtaane lépp lu jëm ci penc lébu yi donc loolu is maanaam loolu dinañ ci ñëw ci gisuma la mbaaw après. mais mbaaw pour dire mbaaw li tax ñu naan mbaaw petit mbaaw ak grand mbaaw la mooy source bi léegi nag yi ci yi ci yi ci yi ci yi ci topp yëpp dañ ñëw fekki sa tur bi Kër Mbay Fall mbaaw gaar la tudd mu nekk turu histoire am mbaaw gaar parce que gaar bi moo fa nekkoon te ci mbaaw la bokk ñu tuddee ko mbaaw gaar caaroy gaar moo jiitu caaroy géej donc gaar bi dafa indi ay ay dëkkuwaay mais loolu loolu loolu histoire lu leneen la. plus d'un chef-d'œuvre. C'est beaucoup de, de, de hits qui ont marqué à jamais l'histoire du hip-hop sénégalais. Mais depuis un bon bout temps, on a senti quand même un coup de mou. Remontons le temps avec Leus Diwanji. Des hits qui ont fait parler de cet artiste de talent. Regardez, une petite compilation de ces hits qui vous ont certainement marqué sur Arumbed, le temps que nous devons faire bol. Allez, on y va. Gotta wake up early in the morning. A way but go because I gotta find my way. The need to stand up. Get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. li lay boole ci lépp li tax ba duñ la fàtte yaa koy liggéey ay nelaw du la ko may li lay jox kat fépp fu ko dul xalaate every day am na tool ba war a béy balaa jant bi ma jóg tel ko waajal ready to go darkness du yëgoo mun bi laa war a dox mu njëkk fu mën a jël day bëri noo witness it tomorrow jëf la balaa wees réccu di ci am yoon bëgguma wetu ma roo di mere kenn ci ñoom ba dem mu gàddu ba takk dàll gëzal dara loolu weeru gëm balaa jant bi jóg jóg early in the morning ma fi bu yóotu sax yemay jàll gëzal we really need to know palaat bi aussi jeex na parce que wax dëgg yàlla man palaat bi benn laa lekk laa lekk tourné gis palaat bi mu jeex. Leuz franchement gars yi ni def jën bi c'est compliqué. am na ñoo àndal daal ay lekkatu jën lañ de. non ay taalibe sëñ ma sàmbale moo tax mu organiser màggal nii wala gàmm mbooloo mi déparé seen kër ñëw riir si wutal gàmm gi wala màggal ñu woo leen ne leen annulé nañ ko nu dëpp lan jotoon no togg ñi ma àndal nii di tourné armbet la ñuy woo ñu lekk pour ñu bañ koo di waay gàmm guñ fomm daal maanaam. gàmm guñ fomm nag. yaa wolof bi la wax ne yow mën ngaa lekk gàmm guñ fomm. code gars yi di ñii la kumbis la. Omar alors euh, Leuz naaj wi danoo dab. Ah. te xam nga comme say gët fa neexut. Mm-hmm. kaay nu dem kaay kaay kaay kaay viens viens viens je te montre. gis naa benn local bu kii benn local bu local la. eh mais c'est si bis na de. catastrophe. yàlla yi dafa rëy. lii rafet na mais dis na de. alaaj dalal na ci jëlëg bo toog jëlëg mooy ca gàll ca wàlla sori fi mooy jëlëg ah jëlëg ba mooy ci taatu kooku ci taatu taatu kooku mais yii ñoo koy defar ah. waaw ci liggéey bi la bokk yii yee koy defar yii moom li mooy recyclage léegi la gars yi tuddee économie circulaire ça circule et ça crée de l'économie te mbalit la woon mais ñëwaat na ba duggaat ci kër yi ay pneu yu ñu sànni. xoolal li ay palette la affaire yu ñàkk fay ay tissus yu gars yi ay fabrication locale. tout a été recyclé par vous. waaw par ñun suñu association. nag moom nag moom te mu suruxal ma ci compris par la suite mais euh, avant de parler de Mbao parce que j'ai vu comment tu étais impliqué dans le développement communautaire et ça c'est très important peut-être c'est quelque chose que tu Mais là, j'aimerais parler de la carrière de Leuz Diwanji. Euh, la machine à production de hits. Anamou, elle s'est tue ou quoi waaw waaw déjà heureusement fi nga an fi nga commencé question moo grave mooy euh, lii jiitu li maanaam lii jiitu question bi mooy développement durable mooy loolu ñuy def noonu en tant qu'artiste dañu dem ba ci biir ñu xam ne ay wax rek doyul il faut mu ànd ak ay action li ñuy wax yëpp il fallait ñu ñu jëmmal ko donc du du yem maanaam il fallait pas montrer l'examen mais il fallait donc moo tax ñu créer une association bu évoluer ci culture à la base mais bu yëngatu ci tout ce qui est développement durable donc ça nous prend beaucoup de temps gina boo jël pot de fleurs yi tout ce qui e maanaam lu am décor ci kër gi recyclage de te ñun ñoo koy defal suñu bopp donc loolu la ñu dem jàngi écologie jàngi ji tout ce qui est euh, enjeu climatique et cetera et cetera jàng ji gestion des déchets transformation des déchets après nag di ci évoluer donc en parallèle ak suñu carrière artistique donc du du du voyage bi moo ko jur loolu moo jur voyage bi parce que ci loolu la lañ ci am ay collaborateurs yu bëri ba li ñuy def intéressé leen ba ñu mën ci liggéey. kon demoo jàngi feneen leneen. non non lépp fii lañ ko jàngi. da nga jàng fii yóbbu feneen wane. waaw dem nañu xool. fii nii liggéey di wax chaque jour prise de contact ak prise de conscience loolu moo ñu indi parce que fi ñu ne. environnement bi moo ko laaj. moo tax daal nga tëw a defar nga nga gëj a yëngu yëngal. en même temps ñu ngi def ay ay ñu ngi enregistré album yi. c' est juste que ne on n'a pas encore le temps qu'il faut pour voilà def promo bi ci war. parce que dañuy togg album bu ñoree léegi léegi léegi machine baa ngi fi ba léegi dara jotu ko dara wàññeeku ci bu yokkuwul du wàññeeku donc en même temps li may wax dañ koy boole association. en même temps production musicale wala artistique. mu ngi dootoo am wayu dàq mburoog lem si te dis ça. est-ce que tu es conscient. yu ko dàq fuuf ñu ngi ci du dëgg. waaw baax baax na. ruuf la baax na. am na bu garaaw bu boo xamante wayal ñu ko ñu jàpp ko en attendant comme ça nga sécuriser waale ko. ma nekk sa BSDA xaw ma sor. non damay bañ gaa gaa yi gaa ko laal boobu ku ko laal ma rek. am na ba ñëw. yar nañ la ni mu waree. def nañ ci yaway jikko yu rafet. say way jur. jaarale nañ la fiñ la waroon jaarale. dañuy wut ci jigéen ju baax lépp ngi ci yow am nga yar taaru nga te yër mëne ngi ci yow bés bii mënuloon ñàkk fii la la ñëpp doon xaare sa bés bu rafet bés bii ñëpp la ko yéenee doo seen moroom doo seen moroom boo daagoo jaagir jaagir ñu xam ne du benn roy du nuroog piir jong ma piir nga waruñ la tëkkaleeg ñoom ndax doo seen moroom boo mu ñee mu mel ni jant be fenk fépp fu la namoon def nga fa leer nii ngay muñee firi na samay gént fépp amul woon courant def nga fa soleer baa ñu yem foofu j'imagine les filles là avec leur ka euh, leur cas là sur les lits là bu ñuy def seen photo mariage yooy ils vont snapper avec ce son. certainement c'est affaire yu garaaw lañ ci def. lii moom waruma ko woon sax. c'est du rebelote. waaw waaw waruma ko mais en exclusivité aussi. aaru mbedd mooy ngi ñëw ma toggal la jën aussi. <laughs> aaru mbedd. saytaane bi ah, non non non bii moom fale ma may la ko sax. donc parallèlement nga nekk si yeneen affaire yaa ngi yaa ngi yaa ngi. waaw waaw du jeex fa. Eh, incha allah. xam naa brand nañ ko bëggoon génn sax album bi mais dañuy xaaraat tuuti def li ci war parce que li ma ñëpp di clasher la ñu bëgg a corriger yoon mooy ñun dañuy drop album yi rek dem dañu bëgg jël le temps qu'il faut def com bi yóbbu ko ñi ko war a jot ñëpp def ci li ci war pour nit ñi jot ci quoi. mënuma ñëw mënuma ñëw mbaaw en tant que jeune conscient de tout ce qui a été euh, le tollé que ça a eu dans l'actualité et ne pas t'en parler surtout pour les jeunes yi nga xam ne dañu bàyyi ko fii fab ay gaalu looco riir wutali beneen réew bu ñu amul fii dara comment ça se passe la le regard quand tu croises des jeunes euh, est-ce que tu parviens à lire sur leur visage c'est quoi que ce qu'ils disent cette jeunesse waaw bu dee mbaaw c'est un c'est un li may wax chaque jour c'est c'est un peu particulier parce que mbaaw dafa nekkoon li gars yi lébu sax de manière générale dañu nekkoon bërëb bu bu doon am comme comme en abondance parce que dañuy bay wala ñu dem géej mais malheureusement situation dëkk bi état li yi di wax chaque jour càggante état dem na ba lu bëri dañ koy ñàkkal fayda ba mu jur ay jéye yoo xamante ne nii à dire à la base du ñu xam sax ne ñoom ñooy ñooy ñooy origine bi par exemple je m'explique mbaaw euh, booy wër mbaaw ay usines rek ñoo ko wër ay usines yu bëri donc ICS mbaaw la nekk euh, raffinerie mbaaw la nekk maanaam phosphate bi sax mbaaw lañ koy traité lépp lu jëm ci dañ ne maanaam mbaaw dafa nekk lu ñu tudde zone France gars yi tuddee ko zone industrielle te si suufu mbaaw la nekk donc pollution atmosphérique am na parce que ammoniac bi day day day day day day day jékki-jékki te bu peree day jur ay affaires yu garaaw donc mbaaw dafa benn village bu nekk juste à côté de de bi mu tudd mbaaw pël souvent boo fa demee da nga gis xale yi maanaam ay dañu am problème mu bët parce que ammoniac bi day per dañuy dañuy dañuy daw di daw ba ba day day feeñ ci seen regard bu ñu nekkee classe da ngay dem ci école primaire yi élémentaire yi seeni maître dañ naan bu ñu toogul ci kanam du ñu gis c'est des dégâts causés par l'État yeneen dégâts. les industriels. waaw mais les industriels sont sont protégés par l'État loolu laa gars yi. des confront qui ont des conventions avec l'État s'ils les respectent pas. l'État devrait normalement. exact malheureusement ça ne se passe pas comme ça gars yi dañuy def ay yëngu-yëngu jóg aalu kërën kërën yuuxu def lu ne mais dañ koy nëpp nëppal. bàyyiwaat ko mu sedd suufu mbaaw la ñu jël maanaam jamono ji ñuy récupérer zone industrielle bi di ko jox état pour mu def ci ay usine wala nangam sàngam ay ay tool waa dëkk bi la ñu jël am na benn vie bu ne ma jamono jooju dañ leen joxoon ñi fa amoon ay tool ku nekk soixante quinze mille xaalis la woon jamono jooju mais jeex na donc tere nañ leen bay géej bi war a produire malheureusement euh, ñu ci bëri ay ay mool lañu ay pêcheurs traditionnels ñu jox ay ay ay licence pêcheurs industriels yi bateau yu mag yi. l'Union la Chine. waaw maanaam pour ne citer que ñooñu léegi bu ñu jógee ci pollution atmosphérique bi gars yi ñu ngi am problème dañuy polluer géej bi. ci bëri euh, bateau yi dañuy ñëw gis nañu dañuy ñëw fii ci géej bi la ñuy costé ñu solal leen euh, maanaam seen li ñuy chargé ci biir géej gi lañ koy chargé dem ay fuite ak lu mu lu mu lu mu lu mu nice nice day ay fuite yoo day des ci géej gi des fois day am ay huile yoo xamante ne di nga toog une semaine doo mën a sangu ci géej bi parce que géej bi tefes bi day am huile day rey jën yi da leen di dàq la ci bu gars wax ne cimetière des bateaux mbaaw lañ ko def bateau bu bu am problème dañuy ñëw suuxal ko mbaaw maanaam port di sëkk gars yi di sëkk muy am muy muy muy muy rëgëñewaat fii parce que day boo sëkkee fii da koy jëli ci si beneen côte donc ñun li gars yi naan euh, érosion côtière mbaaw lu tollox presque deux cent mètres wala trois cent mètres mu ngi ci biir géej donc déjà dëkkuwaay yi yu ci bëri jóg nañu bu ñu amul ay moyen pour toog ci kaw dañuy disparaître ñenn ñi ñi daan as néew di jàpp di napp jën yi disparaître nañ donc bayu ñu bayuñu ñu dañuy dem malheureusement migrer donc migration li gars yi di wax chaque jour condition de vie bu réunirul rek da nga koy wuti feneen même bu dul de vie de travail sax des fois fi nga nekk ba fa mënul liggéey moo waral moo yi di génn jóge mbaaw dem Bargny Mbour Gambie ba Casamance pour wuti di di rëbb jën parce que fii lañ ko doon am sama maam dama doon wax ne ma ci dex bi rek dañ doon jàpp jën daawuñu sax soxla dem géej géej bu masaan sàmbaraax ba dóor dañuy taxaw ci tefes di for ay jën léegi da ngay dem en profondeur doo am jën ñuy jël yoos bi xamal yoos gaay mooy appât vivant la ko gaay tuddee jox ay licence ay contrat ak yeneen ay gaal yu ndaw ñu jàpp ko di ko jaayaat bato yi pour bu ñu demee en profondeur ñu mën ci jàpp jën yu mag yi c'est-à-dire dañu dañu dañu dañu dañu dañu dañu dañu yàq malheureusement koom bi wala maanaam voilà condition de de travail wala de de de vivre bi fi nekkoon la gars yi dindi. ay nit ñooy toog ci seen ay bureau jël ay décisions ratifier ay accords sans pour autant faire des études donc d'impact environnemental sur la vie des gens ça impacte. euh, sur la santé des gens, ça impacte. Sur le travail des gens, ça impacte. Et j'aimerais un peu def ben trouba, rétrospection un peu dans le temps de ce que tu avais dit dans Early in the Morning. Reviens sur les paroles, la grandeur de ces trucs. Reviens, mhm. reviens sur Early in the Morning. Wow, <clears throat> dama ne. I gotta wake up early in the morning. A long way to go because I gotta find my way. The lone, the lone need to stand up. Get back with the warning.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 in the morning yeewu sël mu gàddu bak takk dàll kë the garalong web go early in the morning mu fipp yootu sakk jéem a jàll kë zaay really need to know early in the morning early in the morning pour ne citer c'est la beauté de ces paroles aujourd'hui Mbao est l'épicentre même de ces industriels dans le Sénégal mm-hmm. ay booy dañuy xëy journée ba ngoon ñu leen di fay ay deux mille sept cents mm-hmm. balaa ñu leen di fay semaine ba semaine. Mhm. fekk ñu am ay bor yu dul jeex. Mhm. di defal booy ay contrat de prestation de service. Mhm. non respect des droits de l'homme du travail. toutes ces choses là se réunissent. booy dañuy early in mais les conditions aussi fële dafay am ñu leen fay tàncaat. parce qu'il n'est pas temps aussi de parler avec euh, l'industriel qui emploie les jeunes en leur disant que ñii ñëmuñ fi pour tour seen ñaq. après ci merci. pour nekk ay ay ay ay ay ay comme ni ñu ay esclaves quoi. parce que la quintessence de ce texte même c' est de motiver les jeunes à se lever Kër Massar rond-point Sicap Mbao foo dem da ngay booy gis booy ñu taxaw yor ay peel di ko xaslu. croisement Mbao jam ñaajo ba ba ba town booy génn da ngay da ngay sa day daw parce que gars yi dañuy li may wax gars yi chaque jour yéenukat yi dawalkatu charrette yi c'est-à-dire da ngay xam ne ñii bëgg nañ def dara jaaykatu xaalis et cetera et cetera dañuy wër dañuy def lu ne. pour génn ci mais comme ni ma wax après après effort tu te rends compte maanaam du dara quoi. pas le réconfort exactement da ngay sonn da ngay rey sa bopp. mais finalement li ngay wax ci usines dafa ma waxoon naa ko bu yàgg benn sànq bu ma waxoon audience de la jeunesse mooy li may wax usines yi ñu ci bëri seen ay borom dëkkuñu fi duñu ay sénégalais ay voilà ay étrangers la ñuy doon mais malheureusement seen effectif ñi maanaam ñiy dogal ci biir usines ay sénégalais la ñuy doon te ñoom ñooy noot sénégalais yi chef de carré surtout. chef de car dama koy wax chaque jour chef de car yi di yëpp suñuy femme ndax sagaru xëy on bosse dans pire que dérisoire maa ngi naan usine naar yi usine la bëgg def jàmm ndax bëgg liggéey un poste coûte une dignité wax naa ko bu yàgg ci son bopp un poste coûte une dignité parce que da ngay da ngay da ngay da ngay nekk jàmm dangay nekk mbaam da ngay nangoo mar da ngay nangoo sëgg da ngay mag yooyu ngay def pour ñu mën la jox ay yenn poste yi chef de car yi booy yi di xëy da ngay ñëw ñu leen di man dafa am na benn jour ma fekk suba teel booy yi taxaw rang rang bu bëri ñu war ci jël une dizaine wala une vingtaine ñëpp ngi taxaw di xaar ku ñu jëlul nga découragé dem ñibbi te suba da ngay ñëwaat donc chaque semaine da gis gars yi di gëdd Sénégalais yi di leen toroxal juste pour dañu bëgg a liggéey ñëwuñu yalwaan dañ ne jël leen ma ma joob donc te bu ma duggee si bi damay liggéey donte li nga may fay jaru ko mais moo ma gënal taxawaalu moom ma gënal jël alalu jàmbur mais ay sénégalais la ñuy jël ñu taxaw di toroxal ay sénégalais. pendant temps gars yi directeur de société doo leen teg bët doo leen gis ñoom ñooy bouclier yi li may wax chaque jour ñoom ñoo fa war a nekk sénégalais yi. comme l'esclavage le le. le, le, le, le patron de, de, de, de, la plantation et le, et le, contremaître. C'est l'esclavage des temps modernes. L'esclavage moderne. Aladi, Aladi, je sens qu'on va en perdre hein, des, des, gens. Mais pour cette jeunesse consciente, ça a toujours été un, un combat que tu as toujours porté. Mm, mm. Euh, c'est du Leus Diwandi. Ça, c'est du tout Leus mm. Parce que man, avec chaque interlocuteur, je sais qu'est-ce qui te fait plaisir, comment tu dois sortir ce qui qui est dans ta tête mais aujourd'hui on est venu pour parler de Gisuma la Mbaaw waaw Gisuma la Mbaaw fu mu jugee walaaj ji. waaw Gisuma la Mbaaw bëri na ay ay ay ay ay ay ay version honnêtement bëri na ay version dégg naa si ay une dizaine. mais yu yu authentique bi nga jàpp ne mooy authentique. dafa am ñett yu authentique ñett yoo xamante ne ni ça revient mooy benn bi dañ ne Mbaaw palmerin la woon donc boo xoolee dex bi marigot bi daf er, er, er, il était riche en vin en palmier mooy tir donc tiir yi dafi bëri woon lool. de palme jamono jooju ay ceddo la ñu islam duggagul et cetera donc sëng dafa bokkoon ci ci noosu sénégalais yi donc pour buur jamono bi gars yi jógee jandeer non avant jandeer sax bu ñu jógee seen migration gars yi ñu ne depuis Égypte ba yegg see Sénégal Jolof ba yegg see donc diggante Kayor ak Cap ak Cap Vert dafa amoon séparation Cap Vert mooy presque de Cap Vert moo départ jandeer bu tubaab Jalaw yegg see ba Ngor. mooy sa combat bi mu way naan mbokkum le boo comme ren ak pataas la ren baa nga jandeer cet laa ngi tubaab jalaw colla baa ngi fii saw janta fii si ngor waaw du waaw waaw loolu leneen la <laughs> donc pour dire ah, waaw a bay moo ma dugal ci mbayam tamaate ba doon man rek duma ci duga yaay ma gaaw donc kooku je suis sûr que tu savais pas. man. waaw il est où. man reprendre naa boobu ci ci dinañ ko déglu. ci album bi waaw bu bees. Euh, le 9 dinañ ko déglu ah avant album bi di génn mooy il faut venir le 9. donc gis nga yaa ngi surprise kooku anam. mu ngi fii ba mu ngi waa Mbaaw la papa moo nekk chef de village actuellement. waaw donc. pour dire pour revenir tuuti ci ci loolu maanaam Amérique moo ne. mbaaw maa ils sont bons waaw waaw loolu du tey. Mhm. looloo tax loolo indi gisuma la mbaaw parce que gisuma la mbaaw dafa am benn bërëb bu tudd ndégét léegi rek laa ci dégganteeg benn kilifa mu dem waat andil waat euh, histoire bi ne ma ndégét moo nekkoon moo nekkoon bërëb boo xamante ni benn garab bu mag la woon lépp lu ñu doon tënk ci presqu'île de Cap-Vert foofu lañ ko doon tënkee te mbaaw la mooy actuellement mu ne mu ngi ko ñu ngi ko mën a situé ci diggante fas Mbaaw euh, Sicap Mbaaw Mbatal ba Petit Mbaaw donc secteur bi foofu moo nekkoon bërëb bu rencontre bi annuel comme comme dans toutes les communes day am ay ay défaillants dina ay traite dina am ay ñoo xamante ne nii dañuy collaborer ñeneen léegi boo collaborer ñoom li ñuy def bâtiment boo yegsee da ngay feeñ donc boo defee ay ay tooxi duuna doo yegsee dañ naan gisuma la mbaaw parce que bâtiment boo ñëwee dinañ la weer te dinañ la génn dëkk bi parce que ñoom bu ñu bu ñu bu ñu kontaanul ci yow dañ lay obligé à ce nga quitter donc da ngay quitter dëkk bi parce que am na lu ñuy def da ngay génn. def njombe boo paree yow de. <laughs> yow de gisuma la mbaaw. maanaam rencontre boobu. boobu boobu gëm naa ko. waaw léegi nag loolu mooy. rencontre sëng bi nii moom. waaw non sëng bi. xam naa pas naankat yi. non non non sëng bi c'était juste pour dire que ne maanaam lieu de rencontre la. lieu boo xamante ne nii. fiesta quoi exactement chaque année dañ daan ñëw di fa fête. mu nekkoon Las Vegas ou da ngay da ngay sappe parce que dañu lan sa récolte baaxul doo ñëw donc pour dire que ne gisuma la mbaaw bi rencontre annuelle la bu ñëpp di xaar comme concert bi dañ bëgg def rendez-vous annuel donc rencontre annuelle la boobu boo ñëwul dañ la moo tax demoo mbaa sa situation demewul noonu kon doo dem bu fekkee baax la nga dinañ la fa gis bu fekkee baax woo doo ñëw donc pour dire que ne. ah tu es bon commerçant. voilà tu as dansé. là tu es en train de ñëw ku ku ku baax lawul dooy ñëw ku yorul moom dooy ñëw. <laughs> Eh, <laughs> kon waaye tout taw wala cinq mille lañ doon glace jël tige man waaw ku yorul deux mille daal doo jëm <laughs> tout taw wala <laughs> léegi léegi beneen bi nag mooy bi ñu waree xeex pour am indépendance pour libérer lébu yi parce que Amari Ngoone Sebel dafa bëggoon di imposer presqu'île de Cap-Vert mooy collectivité lébu ay impôt moom jamono ji moo nekkoon buuru Kayoor mu amoon comme chef suprême major donc lébu yi biñ ko bi ñu xeexeex moom ba daan ko ci lañ ko génnal su way boobu ñu naan géej nga la riire yaa géej nga la riire aya géej ak maajo du daan nga dégg boobu waaw way boobu nag c'était pour dégg pour indi maanaam pour indi way bu bu bu indi indépendance pour liberté wu liberté wu lébu yi ba ñu mën a organiser wu en collectivité en république parce que gars dañ naan république lébu est-ce que sax jiituwul république française Omar tu veux que je mente quoi j'ai pas entendu j'ai pas entendu <laughs> moi j'ai ñi ko bëgg a dégg bëriwul nag. république de lébu loolu nar na bëri ay problème mais xam nga lébu yi. ndax liir yi la jël di ko poñsee. non non duñu yegg foofu xam nga kaama explique la ma jox la tuuti anecdote uh-huh. gis nga euh, gars yi dañuy wax chef de village dañuy wax ay ay maanaam jam lébu si si république am ni mu organisé woo daanaka moom la français yi saa ci jëlaat ko rek parce que jamono 1700 la. seen jikko loolu du ma leen ko. waaw 1700. gis nga Bargéej mbaam xuux lan. waaw Bargéej Barguéej mooy mooy ministre de la pêche Ndeye ji Frey mooy ministre de la jeunesse Frey mooy assemblée nation assemblée générale assemblée nationale du moins parce que ay Frey mooy ay député Ndeye ji Frey mooy président de l'assemblée loolu am na am na liggéey ay laman ay ay ay jaraaf ndey ji réew ndey jàmbur bàjjenu gox ba yegg si si grand sëriñ de Dakar et cetera organisation la boo xamante ne. paa bi nekk woo ko te mu am mbagg yu njool moom la la. kooku jaraaf Youssou booy booy tux yamba nga wasa yaay si si nga ni ko maa ngi tux moo gën mu gis la nga denga moom commencé doom mu ko wuja yaay bi booy bàyyi leen Doux Yamba. loolu oh, ah non je l'aime bien Jaraaf. Jaraaf moom respect quoi Jaraaf moom loolu organisation bi fi amoon la pour pour wane organisation parce que gars yi dama naan am na benn sëb bu ma naan booy wër organisation ba dugg ci lébu gi doxañ teew. am na benn soow tamit dina génne. administration bi bale na loolu léegi maire bi moo gën am doole. nday ji keroog nag am na benn jour maa naan dafa am li ñuy wax ay autorités coutumières. ak ay autorité étatiques loolu système tubaab la pour dindi ñu yéen li ngeen am dara baaxu ci man ma leen di indil sax seen système bu ngeen ni organiser wu à dire loolu la ñu tubaab bi jaay dindi lu ñu am yépp ci valeur nañu baaxul léegi man ngeen di copier te li ma leen di jox nii mooy baax te la parce que li mu ñuy indil banque suñu maire yaa ngi koy def natt yi ngay gis ba banque yem. surtout ma natt ñetti jaabi. waaw ñu ngi koy def. donc ñaari loxo. waaw gis si tànk yi nga jëm. si ay loxo nga yem si ay tànk nga jëm <laughs> donc pour dire que ne li ñuy jaay am na fii ba pare am na fii ah, am na fi honnêtement am na fi pas def nañ ko organisation yooyu jiitu na jiitu na maanaam valeurs yi damay wax autorité coutumière man moo ma gënal autorité étatique loolu si man la parce que je ma dis que ne c'est ça le Sénégal étatique c'est au wax parce parce que dañ ñu ko indi forcé ñu ko jox ñu ko indi ñu ay constitution indi ay affaire tegal ñu ay règlement ba léegi ñun comprendre ko alors que lii c'est la famille c'est le sang tu sens que kii nga bokkal li mu lay wax am na ay jamono ñun mbaaw amoon na ay jamono boo demee gendarmerie dañ lay delluwaat ci dëkk bi dañ naan delluwaatal ci dëkk ba ngeen régler ko parce que chef de village mu ngi foofu amoon nañ org man bu masaan dem di wuti autorisation bu ko chef de village autorisé wul du ma am autorisation mhm. muy préfet muy gendarme fu mu mën a doon donc damay dem ci moom tàggu ko ñu dajale notable yi wax leen lii moo fi am lii moo fi am ñu d' accord ku ne joxe sa avis. l'endoctrinement l'endoctrinement comment on dit ça. Mhm. est arrivé à un point du non retour ba li ngay wax ni tellement c'est vrai que intellectuels yi pis ay bët di yëy si ngom di takk xarawaat mhm. nañ toog fenn <laughs> booy bi il a commencé à fumer les joints mais booy booy qu'est-ce qu'il raconte i jaxaaf jaxaaf mooy zaaru xogaleku kat yooyu c'est les mauvais africains. Ah, c'est les nègres c'est des c'est des c'est des bunti. mais loolu. loolu la la la la Cheikh Hamidou Kane doon wax. ci ci livre am aventure ambiguë. Samba Diallo boobu noonu. Samba Diallo dof bee ko rey dof boobu noonu du ab dof de. dof boobu mooy le choc entre les deux cultures. parce que dafa jàng ji philosophie dem France ñëw ñu koy wax waxu daara ji muy weddi yàlla ji ko ji ji ñu ko jàngaloon sa daara ji parce que dañ ne ce jour là Thierno l'avait battu. cependant Samba Diallo savait encore son verset mais dóor yooyu noonu lañ dinti dañ lay indi yaru Sénégal naka la ñuy def ba def ay valeur ci doom ci ci xale. malheureusement bi mu demee France jàng ji après ñëw weddi sëriñ ba ko doon jàngal di ko gën a seen seen yàlla ji du yàlla leen xam-xam xam-xam du pexe et Leuze ce qui fait référence les références de Leuze pour comprendre ou pour prendre un pied un plaisir à écouter le malin plaisir à l'écouter il faut avoir ne serait-ce qu'un minimum de culture générale ou de background donc j'inviterai tous les Sénégalais tous les jeunes surtout à aller se cultiver parce que gëstu daa baax daal parce que dafay permettre bu nit di wax di ngay am référence yi muy jël parce que bu gars yi waxee Elon Musk bon c'est pas diabolique c'est pas parce que tu connais Elon Musk ou que tu connais Mark Zuckerberg que tu as une culture générale la culture générale c'est connaître euh, aventure ambiguë lan mooy histoire au Sénégal les Batous euh, ce am am sa euh, euh, Aminata Sow Fall toute cette littérature africaine qui qui qui qui qui glorifie mhm. nos valeurs et nos vertus maintenant parlons parlons du du du du du 9. le 9 décembre yow du le 10 mooy sa anniversaire. waaw pourquoi defoo ko le 10. dama ko bëgg beesal ba pare 9 dañuy indi lu bees ba pare. doog doog ko diisal 9 bi foofu ngay def. waaw dañ koy beesal ba pare diis diisal ko dañ dañ maanaam le 9. c'est am na. it's your birthday. yeah that's it that's the the day before my birthday. it's it's gonna be the middle it's your birthday in the middle. it just. <laughs> before, just before the birthday. <laughs> it's in the middle yeah, of the show. That's it. Ladies and gentlemen, make some noise for the last Diwanji's birthday. Yeah, and we're gonna sing together. Happy birthday. And, and ça va se faire comme ça. ça. It's just a way to, to, to, to let people to sing for me at the day of my birthday. As you say just a while back, in the middle of the show, uh -huh. people go go sing for Are me. Are you sure? I'm not sure, but I'm am more than sure. loolu calendrier bu ñu doon may suñ mbokki Banjul yi ñu doon seetaan te di leen wax ne leen langolophone yi daal ñu ngi leen di sant baax di la gërëm yéen a ma ñi dëkk ci beneen dëkk boobu. mbaam xuux yooyu yéen a ma leen gënal. non waxuma waa kii ah. ñii langale. Ah. ñoo ma gënal ñeneen ñi làkk leneen làkk bi. Ah. ñooñu ay mbaam xuux lan ay sàcc leen ay wéyu leen ay ay ay ay ay rogojeeru <laughs> samay wax la maa ngi nii man Fall ma dégg ma ma dem ba ma ca benn borom baat ba. alors le le neuf mooy gisuma la mbaaw. Mm-hmm. et tu aimerais que mbaaw. Mm-hmm. mais graaw na ci ku dëkk. jàmm gën ku dëkk Pikine ku dëkk Thiaroye ku dëkk Patte d'Oie ku dëkk Wakam mhm. ku dëkk fu nekk nekk fan Suleuze mhm. Mbour mhm. Kaolack Tamba Ziguinchor ñëpp jugee fépp ku nekk wax ne waaye gisuma la mbaaw parce que mun na nekk rendez-vous du mais lii dangereux mooy nga dëkk mbaaw ba pare gisuñu la mbaaw moo tax on essaye de man comme ni ma wax rek ñun ay lebu lañu fi la ñu juddoo fi la ñu màggee donc on a essayé de faire le maximum dem ci gars yi wax ak ñoom que c'est pour comme li ñuy wax lébu lébu dañ dañ koy boole. donc def nañu waaw exactement yéeg yéeg boobu lañuy ñuy jéem a fexe woo ñëpp déjà li ci li ci spécial mooy du Seck le l'ancien président de l'Assemblée nationale. Euh, voilà dafa dafa dafa dafa dafa nekk une icône comme li may wax gars yi chaque jour. voilà une référence si si du du du li may wax gars yi du xaalis du du ay ay maanaam ci taxawu ci jéexal na. mais à chaque fois bu ñuy def ay activité day ñëw day ñëw dañuy soutenir day joxe ay conseils day voilà mu ngi ñu soutenir ci côté bu ne jël benn benn galerie bu ñuy wax bu këram transformé ko en galerie ubbi ko formation ñuy defal xale yi mbaaw yépp këram lañ koy defee. Mhm. te il assiste tous les matins il est là sawar ci lool. donc di ñu jox ay conseils di ñu encadrer di ñu orienter donc dañu ne c'est une man musuma parrainer benn benn doomu aadama et c'est une occasion pour remercier ko par rapport ak li mu def yépp. invité mbaaw yëpp pour journée boobu pour wane ne doomu mbaaw mooy concert mais doomu mbaaw lañ ko parrainé référence la ci politique parce que def na fi wax def na fi lu fi peut-être lu lu du mën lu fi kenn deful mais lu raar mu nekk ministre des finance ñu am luñ ko taxal mu démissionné ba mu leer gars yi di ko joxaat poste mu ne baax na. Mhm. pour man loolu dignité la te loolu c'est un exemple moom dañ ko war a jàngale ko wan ko ñëpp donc ci loolu laa ko nawee ci ci ci ci doylu parce que bi mu paree jéem nañ ko joxaat ay poste ne baax na. et chaque fois da ngay gis ne am na ko mën na ko war na mën a bokk ci ci ci ci langue politique gi mais il a décidé de se voilà de se retirer loolu pour man grandeur la. donc loolu moo tax loolu la ñu exemple boobu la ñu bëgg a wane du ñu parrainer n'importe qui mais dañuy parrainer pour ay exemple pour nit ñi di xool ci ñan la ñu war a roy quoi donc voilà. le 9 décembre. au stade de Mbao. Alaaji stade Mbao nga laal de. waaw yàgg nañ ko laal waaw waaw buñ la seetaanee mbaa mbir mi du ñaaw. buñ ko ñun dañuy ñëw suñu caméra di xool ndax waa mbaaw ñëw nañ de xam nga sénégalais dañu dañuy dem si événement pour xool ndax fees xam nga man gis naa la si ay spectacle yoo xam ne da nga ñëw indi culture lébu ñëw jaay si mbaaw mu am spectacle c'est-à-dire au-delà du rap au-delà de la prestation musicale que tu fais il y a quelque de de regardable c'est comme si dañu nekk si benn kanamu pièce théâtrale wala di seetaan film di découvrir benn histoire bu extraordinaire et ça je t'en félicite ah, mais si jamais tu fais toi ce que waa mbaaw ne non dañuy calme noonu ba ma ñëw ba filmer xool xool bi mu viddi ne alaaji ma koy filmer de waa mbaaw defi la ñuy bañ la ñuy bañ noo xoolal mbaaw honnêtement dama leen di remercier ci loolu waa man euh, yàlla dimbali na ma ci man des fois damay am sax kersa dama damay xam ne sas bi dafa diis ci man te paa yeeg maire yeeg ñëpp may woo lu ne laay dégg donc pour dire que ne ñoom ñoom doomoon nañ ma et franchement loolu dama c'est une occasion tamit pour remercier leen pour wax la ne sas bi diis na mais dinañ ko jéem a dékku parce que xam nañu yéen fan la toll honnêtement barki démb la benn paa woo ne ma musul dem concert ci àdduna mais dina ñëw ci concert. <laughs> paa bu góor waaw wóor na ah, jigéen daa am. kii la paa yu jigéen day am xanaa deux heures da ngeen ay paa yu jigéen. <laughs> Ah, léegi am nañ ay góor jigéen yoo xam ne léegi ay kii ay paa la ñu woon ay mère la. ah en tout cas. waaw ah, man damay xaaral ma noppi du ma si wax. mais pour la sélection de tes artistes rappeurs. parce que gis sur la liste de des que tu avais invité plein plein plein plein ñi ñëw. donc yow Denjaloo waa Mbaaw surprise amul keneen kuy ñëwaat ci surprise. non ba am na. mais bon comme comme dañu wax ne. c' est à dire rendez bi comme ni ma. surprise dooñu ko. non est ce que du ma ko bàyyi waa Mbaaw rek. ba je crois que yow jox naa la si surprise yëpp. mais man dama ko publier gul mais yow am nga ñëpp. mais bon pour dire que ne moom Pape Sidi am na exclusivité yëpp <laughs> waxuma ko gars yi nag mais moom xaw ma naa ko lépp. xaw fu may jàmbur nit ñi dañ koy jot di ci rey seen bopp. <laughs> fekk man parkerisé naa album bi ndax déglu bu yàgg. donc voilà am na si ñoom franchement nee nañu euh, dañu am xalaat nañu peut-être ñu retard mais dinañu dinañ ko jaayante ñëw donc ñooñu ñooy surprise mais pour dire rendez-vous bi c'est pour tamit. comme li may wax gars yi yàgg naa dem te mbaaw ñu bëri. yàgg 9 décembre waa Nda waa mbaaw ñoo ñoo ñoo ñoo war a noos. waaw na waa mbaaw ñëw ñu noonu. exactement te ba pare dañ leen di indil ay artistes yu ñu doon seetaan ci télé yi mosuñu leen gis ñu doon dégg seen i objectif bi loolu la c' est pour faire vibrer vibrer mbaaw ni ko gars yi di wax mais aussi tamit wan leen ne leen est un rendez vous bu war a bu ñu war a pérenniser mu nekk annuel artistes yëpp laa bëgg ñu jaar mbaaw bu dul bii di ba ca tëpp ba ca tëpp ba ñëpp kooku laay laay dinañ. moom si invité moom ci boppam moom ma woo mais kan mooy kooku laay laay dañ ma bëgg a dugal kan <laughs> ここここlaay laay ko ko yow maa ni moom ci boppam moo la woo waa ku la woo kan la ku la woo ko ko laay laay woo la woo ku la woo yow kan nga bëgg bu ñëw <laughs> kan nga bëgg bu ñëw léegi yow kon moo la woo bi ma ne la ko ko laay laay nga ne woo na ma ñëpp woo nañ ma ñëpp <laughs> Eumeu Sène Eumeu Sène. ah ah boo génnee ko ko laay laay loolu du ma nangu loolu Eumeu sama gaay la. woo na la. non sama gaay la nag wan ma keroog ma nag saa yi damay def concert mu ne ma mu ne ma damay ñëw <laughs> ama invitation baa ngi doon Pape Sidi lay kaayoo Pape Sidi si. ma ne ko wala dara dama ne nag kooku laay laay dina ñëw nga ne ma moom si boppam moom. da ngeen ma yóbbaale ci yooyu non sama waay la nag. <laughs> le concert de Leuz Diwane ji gisuma la Mbao au stade de Mbao le 9 décembre alors c'est un événement du hip-hop à absolument venir euh, regarder parce que je pense que il faut que gars yi ñëw discover le public de Mbao il faut que le public de Mbao dem discover yeneen artistes nga xam ne ñoom ñooy prester fépp parce que tu as bien fait de put mbaaw on the map of hip-hop il faut que ñu am une date boo xam ne c'est symbolique c'est historique bu jotateere gars yi dañuy xalaat yee waa mbaaw et puis maa ngi woo waa yëpp ñu bañ a dagg signal yi. waaw surtout loolu. a ah, dimbali leen ñu si loolu. noo de bu jëree ñu dem fas yéene. ko koñ seen waaw ah, yee mooy monsieur le maire moom mooy maire dëkk bi <laughs> non monsieur le maire dinañ ko day nañ ko. donc on invite tout le monde on invite tout le monde comme li ma wax rek c'est une occasion pour ñu dindi différence yi. voilà seen seen seen seen appartenance politique seen appartenance bu mu mën a doon ñu dindi ko pour mbaaw nu serait-ce que benn guddi ñii ñi daawul nuyoon te ñu gisee daje nuyoo. ñi daaw ñi sequl woon jàmm ñu daje seq jàmm c'est pour dire que ne loolu maanaam mbaaw moo mag loolu moo mag ay appartenance politique moo mag moo mag ay appartenance religieuse et cetera et cetera lu mu a doon ak foo a bokk fàtte ko pour mbaaw pour benn jour ñu dundu jàmm foo ree ñu xam ne loolu mooy doolay mbaaw loolu la mës a demee te noonu la ñu am yaakaar ne noonu lay continuer di demee te y'a y'a le li may wax gars yi chaque jour y'a man am naa génération boo xam ne ñu ci bëri ay cadre lañu ñu ci bëri ñu ngi ci fii ñu ñu ngi ñu ngi fële mais ñu ci bëri politique moo tax ñu ragal et c'est le moment tamit pour ñu lever barrières yi pour wala na ñëw leen pour ñu bokk benn guddi mais ñu réfléchir pour le développement de Mbao de manière générale. donc pour man loolu mooy guddi bi mooy dajale ñëpp couche yëpp âge yëpp donc ñëpp ñëw ñu dundaat ko parce que daan na fi am mais gëj na fi am. dinaa ñëw ak sama équipe télé pour euh, xool waa getu Bay parce que waa VIP ak waa Tribune. ñoom dañuy doser quoi. Oh non xamuñu loolu de. loolu amul mbaaw de mbaaw amul dosé amul ah. star amul loolu ñun ñëpp ñoo voilà gars yi dinañ ko dund de. Ah. la yaa ngi wax rek. waaw waaw ba gis nga bu doon fii ci bënnux bi fii parce que bënnux bi mooy place bi ñu tàmm concert day gis gars yi di sangoo suuf si <laughs> mais fële euh, malheureusement pelouse moo fa am <laughs> donc dina xaw a compliqué waaw. spectacle que que je je je je je voudrais vivre en instant di ko di ko di ko enjoy live and direct euh, di bëggee waa mbaaw yëpp. di remercier euh, Herman pour le cadrage merci beaucoup à Kumbis pour les potins les nettali les jottali ak les wax lu sa yoon nekkut les yëfu jàmbur elle est formidable dans cette affaire reste comme tu es on t'aime comment tu es ma chérie Omar Diabel Diop pour le montage et Pape Sidi pour le waxage Leuz Diwane G vous quitte avec un freestyle bon gars yi nee nañ mënu rap ah. wala non saa waay léegi bàyyi na rap. <coughs> ah dégg nga bëgg ma rap. <coughs> waxal ak say boy. wax leen ñu toog bu jekk ku ma ci topp am lu tooy tey ma wa la jekku naa ti jekku na li ma doon tijji ay at daan jini baykat di jina booy kët saa su ne ma jub lu penk jullu muslu si seen cat sas bi de laa bëgg dekku mu mat balaa seen set seen teet yi laay seen li ngeen di séentu ay at sama tëstën ngay téyen yam ci muy ball nga def tat dama ci wexxat ni wextan bi yàq ndawal mbaam bi lay wexxat bal bi rab bi la nañ ko dawal bokkaleen tiital te man sori lay gis du course de vitesse endurance dalal may booy jokkul dikkal am sori li ngay wër lay wis man la prof de fitness witness concurrence su mag booy du ma fa de paay man a xalu ndeef bi lakk sa gat di fatt fay ku xef dal sama kaw di nga tëbaat